xanaa ñu ne ñu ne alhamdulilah rabi alhamdulilah rabi alamin allahumma salli ala sayyidina Muhammad salli jërëjëfati yàlla yàlla kenn amul fayam dañuy allahu akbar Dieu est grand tey jii ku seetaantee procès bii dag naan lu tax procès am lii yëpp pour lii tey mooy gendarme bu ñëwee ne gisuñ benn outrage kenn waxu ci dara lu ñaaw du Bougane du jëm àndal ba tax procureur xaw mer ndax moom moo yokkoon délit boobu bu njëkk dañu naan refus d'obtempérer et rébellion ci loolu lañ ko laaj mu tontu mu leer naañ xamul lu muy def bi ñëwee Tamba lu bokk ci PV bi procureur jàmbaas yokku ci outrage à agent ban agent ba léegi waxu ju la xanaa agent extraterrestre la buñ buñ outragé c'est ridicule boobu tribunal nee na relaxé na ci totalement Bougane Gueye Dany ndax gendarmerie ci boppam ñoo ko satal ba mu set wicc rébellion bi nee na moom am na dut dara leeru ko ci rébellion te kenn neewul Bougane dafa xeex ak gendarmerie ni du du taxaw nangam nangam donc relaxé na ko au bénéfice du doute moom donc donc li procureur wax juge bi nee na toy ko li ma yow procureur li nga toppee bugaan ci rébellion doyuma aw ma ci lu leer donc dafa lëndëm sama bopp relaxé naa ko au bénéfice du doute kon ñaar yooyu ci ñett mooy bàyyi nañ ko ñetteel bi bu ne ki refus d'obtempérer mooy taxawal nga bañ tëj naa ko ci un mois avec sursis un mois avec sursis ak cent un mois avec sursis ak cent mille francs loolu bien que ñun d'accord ñu ci mën nañ koo nangoo gum ndax day tax bugaan génn mën a fekk ay ñoñam fekk njabootam gi fekk ñi bokkal coalition yi muy sàmm sa kàddu muy takku wàllu intercoalition kon tey bugaan guddi na defe naa mais guddeegul war a mën a reere ginaar <laughs> war a mën a jot ànd gaañ yi euh, yëngal gaal gi yëngalaat gaal gi tibb tànk door wane lépp leer Sénégal jëm kanam kon ndam lu rëy tey la am moom la Bougane am moom la Sénégal am moom la monde bi am ndax ñëpp addina bi yëpp ñu ngi doon dëru Sénégal kon Tambacounda bi ñëwoon Tambacounda woon ñoo ñàkk a fay leen fi lañ def magistrat yi ñu bëggoon a sanctionné magistrat ñi ñu ne dañ leen a mere ñoom ñoom ñu ngi leen Tambacounda tey Tambacounda gàcce ngaalaama Tamba war na ne am na ay juge de valeur ñu am jot ñu am fulla ñu am fayda ñoo xam ne kenn du jox ay ordre procureur moom da jël ordre ndax moom ministère de la justice mooy patron am ministère de la justice premier ministre mooy patron am moo tax procureur moom mën na la jàpp de gouvernement mën na la jàpp waaye siège mooy ñi àtte ñett ñi àtte bu xoolee yàlla xool seen bàmmeel xam ne bugaan mii koo tëj boo dee ñu lakk la pare naa ci. voilà.